bopp bi fii liggéey bi ba mettiwul ak police yi gaay si leen dëgg si leen dëgg gaay yow kan ngay topp yow Sonko ba léegi booyeeguma boo ko siñu découragé ma ah, xool brasé la yaa ngi takk brasé la ba léegi booyeeguma kon ko si gars ah waaye yow ñun deux di xeex xëy ñu gónd kon deux li li ñu ñàkk si ginnaaw mun ñu ko liggéey si ay weer mu ne da nga bëgg a dégg foog ñu ni tekk dal nii toog xaar yàlla kon yow am nga yaakaar quoi. waaye yow li ñu réeroo si Laye Wade rek la Sonko di feeñalaat Laye Wade bi léegi feeñagul de pour muy leer bilaahi Sonko rek. mais gis nga Barthélémy Dias ne day Tamba. waaye day dem Tamba. xam nga Tamba Bougane la ñuy jugé Bougane. waaw. Barthélémy Dias nee dañuy dem nee na police na jël responsabilité am nga keroog gars dañ ko doon sonkorisé foofu ci buntu tribunal. waaw waaw léegi loolu ah. réew mi daal kenn ku ne daal li li yoon yoom nan amul sonk amul keneen comme li Sonko waxoon rek ku ma nday am am nday ku ma amul nday moom na fi jógee buñ ko war a escorté ba def escorté ko li li yoon wax na ko def bu ko yoon tëbbuwul dara dinaa ba dee imposé na imposé boo dee liggéey na liggéey ñun réew mi xuloo xeex moom dañ koo doy sëkk muy së yëbaluñ si kenn nag anduñ si kenn li yoon daal la def nii rek na yoon aate yoonam daal dem daal. wala élection yi du tàmbali. ah élection yi que sa maire gañ man de ay wooteeg yooyu moom fi mu ne benn politicien di daw. politicien yi ñu ah politicien yi politicien yi ay ay politicien de. dëgg yàlla bilaal ngeen mere. kan yéen xanaa bilaal ngeen mere. ah bilaal nag bilaal moom kenn bu dee dëgg bëgg a dégg ba Sonko faloo moom daa mel ne góor a gaynde si ñun moom bilaal te bu mu fàtte mukk suur ba ñu koy jàpp di koy jaarale fii ñu ñoo gaaroon suñu moto ànd ak moom mu ni garaaw dama leen toog ñu di liggéey fii nii dañu siy daax nii fii ñu taxaw nii nes kii sandarme ñëw tëbal ñu fi gis nga ba nu xëyee depuis huit heures ba li heure bii essence sax mënoo ko am sa moto pour liggéey essence sax mënoo ko jël pour liggéey parce que alxuraan lii réew mi lii. metti na mais dañuy góorgóorlu rek me nag ñun lu mën a am rek jàmm ñu gënal ko jàmm nag ñun am jàmm seen si na am jàmm suñu amee jàmm rek am xaalis mais amoo jàmm amoo xaalis moom xam nga li ciy tegu naa noonu lay demee. gërëm maa waaw ñooy delloo da ngay dawal waaw. mais doo gisee situation dëkk bi xam a Kër Massar dëkk bi ah dëkk bi comme nin ko doon gisee rek noonu la koy gisee ba léegi de pour man booba ba léegi changement dara amul quoi pour man dëkk bi ni ko doon gisee ba léegi noonu lañ koy gën a gisee quoi waaw. mais élection yi suba fi ngeen nekkoon ci euh, gëm-gëm ak euh, Ousmane Sonko diggante Ousmane Sonko yéen a ngi ba léegi wala wala man moom mosuma ànd ak Ousmane Sonko quoi wax dëgg ah non pour wax dëgg quoi mosuma ànd ak Ousmane Sonko te aussi élection yi tamit ànduma ak kenn quoi que le meilleur gagne quoi waaw wax dëgg yàlla. waaw parce que gars yi wax jee fi nekk nii rek ak euh, cëfat cëfat jeeg ak jambal jambal ji mais ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu jëm 6 mooy 9 boo si juutalee 6 da ngay am 9 boo juutalee 6 da ngay amaat 9 rek loolu la rek euh, réew mi moom pour mu régler yaakaar naa du ay wax wala ay kii ay kii moo koy régler il faut nga jëf ñu gis quoi waa xëy na nag gars yi ba ci kanam mais gisaguma lu liggéey nag xëy na ci kanam nag ba xam suba lay élection yi démarré bon est-ce que jàpp nga ne coow lu doon am engouement bi topp politiciens yi di daw si oto yi est-ce que yaakaar nga ne loolu dina amaat. non man du ma daw ci benn ginnaaw politicien te tamit jeune bu may déggal dama naan la bul daw ci ginnaaw benn politicien parce que dëkk bi dafa weesu ñu topp si di ñu nax wala di ñu torturer wala di ñu jàppee ay xale yu ndaw walla ñuy ñu jàppee ñu ñu nga xamante ni comme ay dof quoi ñooñu la ñu yi jàppee waaw. man moom boo bëggee dégg-dégg du ma topp ci ginnaaw benn politicien wala benn wala kenn di ko maral ay taatam wala dara waaw wax dëgg yàlla aw ma boobu quoi billaahi waaw. mais grand maa ngi jégal ma ko ah d' accord euh, maa maa ngi jégalu ñu koñ ne dox. gaay yi tooñ ñoo dem xam nga jógal si gaay yi mais kenn maa ngi lay ziar. Fall fekk lépp sant yàlla. yaa ngi toog affaire yi non saa yi mooy la gisuñu dara naa dëkk bi tar na trop quoi tar na trop dara doxul waaw projet yi ñu waxoon si jeunes yi lépp lu ñu waxoon moom gisuñu dara ko vraiment dëkk bi doxul waaw pour dire vrai quoi ñoo ngi xëy di jaante xam nga doon ay góor di ko jaante muy tar mais ñoo ngi meññee mais comme euh, lu saa yi waxoon sànq rek na ñu may jàmm te moment bi tollatuñu bu ñuy fu ñuy toppee benn benn politicien tollatuñu foofu naxembaay bi dafa dem ba sax suñu xol quoi pare na si loolu ñu ngi si liggéey bu ñu mënee ñëw puus ñu nekk si job bi anyway bu ñu ko mënul nekk duñ fi ay élection kërëb kërëb parce que benn artiste waxoon na ko ñu mil ba pare bu ko toog si suñu bopp quoi mënul nekk waaw na ñu bàyyi ñu job toog si town bi liggéey fi toog fi tekk fi comme ni ko ko gars yi waxee war na mën a nekk ñu toog fii liggéey fi tekk fi waaw mais bu ñu naree xëy suñu liberté ak suñu freedom rek day xaw a tar waaw toog fi tekk fi ak mën a nekk mais bu dee nii ñu démarré yi soo jo projet ak Sonko lu ñu démarré nii moom ça ne va pas quoi loolu. waaw lu tax lu tax loolu lu tax ñu wane moo del sax. waaw dalul sama xel parce que dèjà ñun dèjà ñoo ngi nii di fii nii gars yi dañuy ñëw gaare seen goylet fii gendarmerie dañuy indil xam ne nii mënuñoo comprendre nii la demee te dëkk baa ngi bëri ay crime am ay partout demuñu régler loolu mais dañuy ñëw suñuy jeunes yoo xam ne ñoo ngi si dëkk bi bëgg a tekki fii liggéey fii xam nga nekk fi pour job mais dañuy ñëw ñu dañuy sonal quoi waaw naa ñu dañuy dagg wala naa leen jógee leen fii wala ñu ñuy dagg suñu xaalis boo xam ne ni warul demee noonu waaw bu ñu yërëmuñ puusi ñu nañu bàyyi ak suñuy jaam ak suñuy job waaw ñoom bu ñu bu ñu puusul nañu bàyyi ak suñuy jaam ak suñuy liggéey parce que ñu dëgëb lañ dëkk loolu mooy yoon bu dee ay élection nag instant bi taluñu benn politicien waaw muy Ousmane Sonko di Diomaye waaw bu ñu parewul pour jàppale jeunesse bi ñun taluñu leen waaw yàlla yaa na quoi si lañ dëkk taluñu leen ay élection yi ñuy wax législative mais présidentielle anyway nañ def lu leen neex lu ñu mënoon def nañ ko may leen xeex nañ ba ñu toog waaw taxaw nañ ci dëkk bi fayit ba ñu toog ñu dégg ñu loo xam ne nii xam nga dañ koo gëmoon mais instant bii nii jéggi nañ loolu tollatuñu fu ñu politicien di naxee waaw tollatuñu foofu quoi fu ñu politicien di naxee de toute façon daal bu ñu mënee yokk nañ ñu yokk bu ñu mënul yokk nañ ñu may ak suñuy jàmm ak salaam ñu bàyyi suñuy jàmm quoi. voilà merci beaucoup voilà ñu kon ne yi doxantu gis gars jël gars yi comme ni ma ko doon defee rek man damay wàcc rek euh, di wër ah, di euh, wax ak gars yi du ma leen laaj sax parfois ku nekk rek laay ñëw fu nekk laay dugg

xam nga depuis 60 ans depuis ba ñu amee indépendance ba léegi dëkk bi ñu ko yàq ñu gaspillé ko mënoo benn benn laps de temps ay 6 mois 7 mois nga mëccee loo xam ne mënut a nekk quoi affaire moom buñ yàkkamtu la danay change incha allah moom benn problème. waaw yaa ngi noonu xamee ko <laughs> voilà ñu continuer continuer jël gars yi comme ni ko defoon la fois passée en fait di leen fàttali ba léegi ñu ngi fi mais grand maa ngi lay ziar. téléphone benn ñaata. téléphone te ma koy wante rek ñu may loolu rek. mais lan nga koy wante rek gannaaw ah, téléphone yu mool yi. téléphone yu mool yi xool téléphone yi. gis nga ko de. ma di war a ko wante. bilaay client yi bëgg nañ trop mais xaalis moo amul quoi. mais nag daal eh, yéeme na de. Ah. bilaay doy na waa de. kàkk foo ko natt daal weesu na fa. Ah. bilaay foo far yow. campagne suba man fi nit ñi far laa di far. nit ñi daa mel ne fee lañ gën a far de ñoom Sonko. déet fi nit ñi far de bu ne xam na ko. fan la nit ñi far xam nga ko. fan la ma xam nga ko bu baax. ah mais gannaaw waxoon xam nga li ma la wax non attends mais maanaam nit ñi ñi gën a bëri majorité bi ñoom Sonko lañ topp ñi gën a bëri waaw waaye nag boo xool nit ñi laa wax de waaw kay nit ñi ñoo ñoo nit am nga ñi ma la wax saa mu li mu wax dëgg la dëgg bi daa métti daa xam nga lan mooy lan mooy réew maanaam nit ñi bu la joxee bu la joxee réew li la war mooy kan lan defaral ñun ñaar nga dimbali ñu ci defaral sunu defaral ñu yow tabaxoo raaxoo ah cimenté woo defoo dara yaa ngi dégg da ngaa ñëw fekk lépp pare li la war na mooy que ne wàññi lépp nga doxal mais nag boo ñu buggee taxaw nan nga war ma ay 2050 ak 2000 nangam ak nangam ñëw loolu ñun ku guddul fan doo ko te loolu du àdduna. mais mais loolu maanaam foofu lañ jëm mais 5 ans yi am na lu ñu teg. 5 ans yi fi projet bu xam nga ñi fi nekkoon dafa am loo xamante ne dañ ko débuté gis nga nit ki maanaam bu la joxee bu la joxee lenge ne la a doxalal yow li la war mooy ko la doon doxalal yaa ngi dégg mais waa ji xanaa yow kër gu nga nekk sax boo fa dee lekk sax bu yàgg nga dem duus mais ñii demuñu duus sawuñu te du àdduna ñun demuñu ñun ñun tey maanaam man sama carte ñoom laa ko sànni lool mais fa ñu jëm ji bari sëñ bi sama carte dootuñu koo lekkati parce que loolu du àdduna say say jeunesse da nga leen war a yërëm tey ji Sonko moo gën a tax sax dëkk dëkk bi gën a dëgër parce que 1000 francs 1000 francs yi ñu yóbbu nii fi gën a dëgër a dëkk bi yow dëkk bu dëgër mais mais loolu moo gën tibb xaalis état bi nag. moo gën lan tibb laaj 1000 francs 1000 francs moo gën. ñaari loxo la de day tibb ci état di tibb fii nañu ñu nalaw ne. da ngeen koy wax loo da ngeen ñuy wax ñoo xamante ne duñu ay duñu duñu ay duñu ay dof ñun ay dof ñun ay la yor day tibb di tibb fële déggoo mu la wax nag. kii dafa juum ki lu muy wax nii c'est diamétralement opposé ak lu am parce que fii y a beaucoup de choses yoo xamante ne moom li muy wax horizon deux mille cinquante ça c' est rek mais d'ici ces cinq ans on aura un changement dinañ gis ay affaire yu bëri yoo xamante ne dina amélioré ak ay yenn affaire yoo xamante ne yu bëri mais ko laaj mu ne la Sonko daa laaj nit mille francs et consort parce que loolu ñoom ñoom ñoo ko bëgg dalaa woo ne la si tu peux venir nga ñëw si mënoo ñëw nga toog sa kër yow soo jógee sa kër ak engagement wu nga jug jug sa kër par exemple ñu dëkk à Mbambilor ñu jógee foofu dem ba jam passe seen 1000 francs pour écouter ce que Sonko di moo tax ñu lii nii ko mais il y a quoi problème si loolu noonu amul problème wala horizon 2050 c'est une date fixée c'est d'ici 2050 ce qui va se comme nga jógee fii pour dem Mbambilor si yoon bi mun nga am ay affaire ay changements yu bëri ay obstacles yaa ngi gën a xam te d'ici des mois dinañ gis ay changement yu bëri yu am incha allah nous sommes derrière eux et nous serons toujours derrière eux incha allah. let's go. <laughs> ça mais saa yi nii moom nee <laughs> ma jaaxal man ñu mu fekkoon semaine bële passé ku ma ñëw nga daw yéen mais grand yëpp di leen di leen topp mais yéen ngeen <laughs> message seen jabar yi seen doom yi ku nekk leen woo. naa la mais grand la gis naa si TikTok tey ñu ngi ci réel ak Barça man maa ngi ci Barça tey ah. Barça waaw bu match bu garaaw ngay gis. mais Barthélémy Dias nee lay dem Tamba. saa yi ñun ñu ngi Kër Massar ñun ñu ngi Kër Massar. saa dafa daw saa dafa daw voilà ay continuer doxantu comme ni ma ko defoon la dernière fois rek en fait damay ñëw rek dugg si gars yi xam nga sans laajte sans dara xam nga xam soobu si gars noonu laa def. ñëwaat naa si gars yi mais mon père mais mon maa ngi lay ziar waaw li ma jaaxal léegi dama la laaj non non tàngoor dama la jaaxal wala <laughs> ñi ma jëloon ñëpp ay daw wala <laughs> wala d'accord nee na ma. <laughs> li ma jaaxal ah mais li ma jaaxal.